jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki 35 imam yi doon wàcceel kaamil Sadio Mané jëmm ji ci la bokk kii mooy Serigne Diawo Pël Firdu bi ñu yëgee mbir mi ah, ci la ñëw woo ko ngir war a séq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu bokk na ci mbirum blessure Sadio Mané ba tey ah, ndax am na avancement wala arrière la am ak ñoom ñaan yi ñu doon def danañ ko dugg indi ci ay leeral danañ waxtaanee xam-xam mbokk yi Sénégal fan lay toll ci kub bi danañ ci dugg tamit andi ci ay leeral kan mooy jël coupe du monde bi tamit danañ ci dugg andi ci ay leeral tey danañ waxtaanee xam-xam mbokk yi kii Paul Firde la kii mooy jëmm ji nga xamante ni yaakaar naa wàllum ñaan yàlla képp kuy téye kurus nangul nga ko ne borom xam-xam la mu xam garab xam reen xam sungub xam xas. nee na ma xam-xamu xëccoo yi li ma ci yàlla may bariwul ñum ko ci may mbokk yi ci kii laay njëkk a déggee sëriñ bu taxaw ne groupe bu jinne la yor dinaa ko laaj ndax bu jinne yooyu day dem Qatar wala lan moo xew dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xoos ci dëgg waxtaan wi sëriñ Diaw Pëlu Firdo ñoo ngi lay ziar. sant naa yàlla di la santeen eh, maanaam euh, man comme li ma wax keroon loolu laa leen wax tey mm-hmm. groupe jinne laa yor. seet bu may seet man du ma seet. jinne ñooy seet. a nit loo mënta mel jinne ñooy seet du man. jinne ñooy seet ñooy seet man du ma seet. seet jooni jooni ñu xamal la boo xam ne fukki at gi ci kanam lu war loo war a am ci fukki at jinne dañ ma koy waxal. allahu maanaam ñun dañuy am groupe jinne même ci wàllu Sadio Mané. wàllu Sadio ñi ko yàkkal. waaw bari nañu mais nag dañ ko bet incha allahu ren bi nii. du ko dal du ko dalati illa yow mi diini. dañoo bett Sadio Mané. dañ ko bett mais ah. mais lu ko dal du ko dalati illa yow mi diini. Sénégal nañu fonk suñu rew nañu fonk suñu réew. Hmm. nañu fonk suñu réew bu ñu fonkee suñu réew lu ñu yor rek ñu am ko. mais kaamil yi bëgg naa ñu ñëwaat ci kaamil. kaamil yi wàcce nañu kaamilu. ñun trente cinq imam wàcce nañ kaamilu pour Sadio Mané ak équipe bi yëpp. Ah, ak équipe nationale bi yëpp la ñu wàccee kaamilu comme li ma lay wax rek. incha allah nañu ñun waa village. ñun lu ñu am si xam-xam. ñi toog ci dagar fii. amuñu xam-xam boobu. Ah. pour que képp ku toog village. ñi gën a bari am nañ am nañ jinne du ñoom nen. kon nag bu ñu bàyyee ñu ñu jàppale équipe bi. équipe bi dana sori. yéen da ngeen bëgg ñu génn ci nañu génn rek ñu ñu jox ñu ñu ñu ñu jàppale leen équipe bi sori. la ilaha illallah. yaa ñun amuñ lu dul suñu équipe bi. Mm-hmm. amuñ lu dul suñu équipe bi. Mm-hmm. nañu bàyyi loolu. nit ñi nañu bàyyi iñaan. Mm-hmm. nañu bàyyi iñaan. iñaan mooy iñaan moo xam ne diw du dem diw du dem Sénégal na bàyyi loolu maanaam ku bëgg a rek ñu bëgg laa indi jafe-jafe. na bàyyi loolu mais loolu nag jeex na lu dal ren saa Sadio Mané du ko dalati illa yow mi diin leer na te am na solo. te incha allah rabbi. di fàttali ne kii pëlu firnde la mbokk yi pëlu yi mooy ñi nga xamante nii bu masaan a dem ci ab dëkk dar fay euh, naweti bu kenn faatoo ci ñoom wala kenn wàcc liggéey duñ ko suul dañ koy taxawal rang ko ay bagage yéen ko bagage yi muy dox di xoole ba yegg ci seen dëkk soog a faatu kon ñii ñu am xam-xam lañ mbokk yi euh, ñii ñooy fekk garab mu taxaw ñu jël garab gi di ko mocc di ko mocc ba garab gi daanu ne euh, këndëng est-ce que loolu tamit mën nga ciy ñëwaat moom nag olof yi leerul. léegi léegi léegi bu ñu ko téyee garab bi dee. Ah. sànni korte léegi léegi mu dee. léegi léegi léegi léegi. nit doomu adama ni ku nekk àlla am na lu mu yàlla may man nag yàlla may na ma ko loo xam ne may na ma sama xam-xam may na ma ay groupe jinne lu ma leen santaane loolu la ñuy def alal jooni jooni boo bëggee alal jooni jooni da da ngay am alal jooni jooni jooni jooni du fi yàgg sax jooni jooni nga am alal bu leer nañ mais ci côté xob tamit damay gis ne yéen des fois euh, boo xoolee yéen pël firdo yi dañuy wax ne wàllum wërsëg yàlla am na leen ci may surtout seen xob yooyu ngeen di fete. wërsëg am na xob yoo xam ne bu ñu ko jàmbee ba pare. léegi léegi léegi nga am boobu moom jinne ñoo koy jàmb sax bu ñu jàmb mën ngaa gis man maa ngi itee dul ma maay jàmb. boo fekkee pël nga bëgg nga naaj ay nga am jur yu bari. waaw jooni jooni yu jur yi doo ko mën a compter. a yaa ngi dégg. Mm-hmm. maanaam maanaam itam euh, euh, ku bugg ku bugg a tukki. ku bugg a tukki. tukki wi uh-huh. nga laal mu jafe lool. boo ñëwee boo ñëwee ci ñun. jinne yi seetal la. Mm-hmm. léegi léegi ngi nga tukki. dara du la garaan fa sa baaraam parce que am na ko ne ma sëñ Diawo euh, man boole naa ko juróomi nit yoo xamante ni presque Canada lañ déposé woon. pour am fa euh, visa nee bi ñu ñëwee ci yow yàlla dogal na juróomi nit yëpp may nañ leen te damay gis ne ambassade yëpp Canada bokk na ci li ci gën a jafe dañuy refusé rek. waaw ñooñu ñëpp am nañ. Mhm. ñun man comme duñu duñu laame laame duñu lambaatu lu ñuy def ñun amuñu caagaan am du ñu laame laame ñun lu ñu xam xam nañ ko. dëgg te koo xam ne yow personnellement euh, nit nga. Mhm. nga am groupe jinne Ah? ah nga leen di foo foo leen santaane loolu la ñuy def ah. loolu leen wax ne loolu la ñuy def mm-hmm. na nit ñi encore itam ñi dem euh, biti réew ñi nekk biti réew nañu jéem a protéger seen bopp mm-hmm. loo gis foofu nañu jéem a protéger seen bopp ah. yaa ngi dégg mm-hmm. alal neex na mais euh, wér yaram moo gën a neex alal nañu jéem a protéger seen bopp am na ñoo xam ne bu ñu demee foofu bu ñu amee alal rek dañuy fotte seen bopp bu leen fàtte seen bopp ñaari mbir am na. Uh-huh. ñaari mbir am na am na loo xam ne. am na loo xam ne. Uh-huh. bu ngeen bu ngeen demee. Uh-huh. seen noon yi danañ jóg. dëgg la ruuxaan yi bon yi dañu jóg. looloo tax nag nit koo xam ne boo demee ba nga tekki na nga fagar bu baax a sa bopp. dëgg la na nga fagar bu baax. boo fagarul lu lay gàllankoor sa alal lu lay gàllankoor sa yaram doo ko xam. dëgg Diaw euh, tey boo xoolee sax wala fi tax xooleer noonu waaye bëgg nañ nga résumé tuuti ci pulaar wax tuuti ci pulaar waxtaan ak sa mbokki pël yi ci liñ jot waxtaan fii nga am tuuti loo ci laal ci pël. ñu jaarama Allah jaarama ko kala miɗo ko woni ɓiɓɓe fulɓe jooɗiɓe nder sénégal walla yaaɓe e caggal leyde neɗɗo kala gorko kala gorko jaaɗo ha heeɓi na wat feere na darino hoore makko kala mo daraki a darinaki hoore ma heeɓi alal heeɓi jawdi a darinaki hoore ma ko yakkat jawdi ma na hanani neɗɗo kebal e eh, keɓal e eh, eh, yombi mais nag keɓal e yombi mais pour keɓal ngal daro il faut daroɗa gorko il faut o daroɗa mhm. goor defo wara degir goor defo wara degir war a wara degir goor deppun lekkul ne loo xam rek lu am rek dugg ci yow loolu nag fagar moo moo moo ko dee indi mhm. nit dafa war a aar boppam am na ñoo xam ne ñu bari dañuy sagan seen bopp woodi yimɓe hewɓe ko ɓe pat ɓe jejjiti koye maɓɓe keeɓi jawdi ɓe jejjiti koye maɓɓe ɗum mm-hmm. waɗi janngo hannde weela rek mbiya a yejjiti hoore ma a hulleyata ñande janngo mbiya simi annduno taw ɗum gasi jawne newde e koye mon ñawde e koye mon bakkiloɗen min tan fala jintidi guinemi saw mi fala bosmante ña uh-huh. pour que annonce amin euh, fijude guine kata euh, kata fasi elis pour que amin ñappa peesay di guine ñafape saydi guinea no kolsonti guinea mi mm-hmm. fala bosman teña abo tambe ki nafala si terra ka juntu mm-hmm. kada peka dur kada peka bur e dibidi buska men señu ku ku sibi kuma eh. boobi bon eh, maa ngi wax ne eh, mbokki Gambia mm-hmm. comme li ma wax mbokki sama mbokki Sénégal yi loolu laaj lay wax sama mbokki Gambia yi na taxaw seen bopp fépp doom adama fu munta nag xam nga ñun nit ku ñuul yi dañu dañuy soxor. dañuy iñaan waaw la moo tax loolu lu xew. soxoranse bi la moo xew soxor. nit da ngay gis ne kii mu liggéeyal boppam ba mu arrivé nga ne kii moom arrivé na ma xaaral ma gàllankoor ko nañu bàyyi loolu man nag am na garab boo xam ne képp ku la laal day day dem ardo ah? garab boo xam ne képp ku la laal da dem ardo ab garab ab am na bagage boo xam ne bu ma la ko joxee. ba képp ku la laar da ngay dem ardo lu ñuy sangoo la wala lu ñu takk la am na lu ñuy sangoo am na lu ñuy lekk boobu boo ko xasee lekk képp ku la laar da ngay dem ardo barke salaatul fati mais xam nga jaawa tamit nen tamit nen yi tamit. nen yooyu foofu la ñu bokk. boobu boo ko laalee barke salaatu du du du ñu waxantu. nen yi noo koy defee noo koy defee. nen yi da ngay bu ñu ko liggéey ba pare da ngay tëdd lekk benn. toog lekk benn jonkon lekk benn taxaw lekk benn xam nga nit balaa nga koy liggéey il faut nga toog wala nga jonkon wala nga taxaw wala nga tëdd ñetti fanu yëpp teñ nga sa bopp ñetti fanu yëpp kenn mënul laa liggéey ba mu kii même lekk sax nit bu la joxee lekk fekkee def ko liggéey lekkal ba nga suur dara du la jot jaaw dara du la jot jaaw xale jigéen yi surtout ñi la yàgg fekk ca Guinée Bissau nee nañu te li may wax ñoom xam nañ ko wallaahi laazim mooy jaaw mosuñoo andi ci moom turu góor wala turu nit wala turu chef wala turu patron jaaw noobal ñu ko te noob ga jàppul jaaw dégg naa yor nga noob gu danger gu garaaw goo xamante ni. noob jooni jooni noob amul noob boo xam ne dafa yàgg am nga ñun bu ñu fasee noob ñu am na ñaari façon. Mm-hmm. boo xam ne bu ñu ko fas. waaw bu ñu fasee noob bi ba pare. waaw ah <laughs> lay doon. yaa ngi dégg am na loo xam ne kanaar la. ñu defal la kanaar xam nga kanaar sax ejut eh, xaju xaju ci boppu jigéen sax. Mhm. sakantuma góor. allahu akbar. kanaar boo xam ne bu ñu ko bu ñu ko kanaaree. Mhm. <laughs> sëñ bi loolu loolu loolu. bàyyi ñu am foofu sax boobu dafa garaaw. gis tamit ay jamono tamit nga génnoon def déclaration ci euh, rajo bu Guinée Bissau nga waxoon ne équipe nationale bu Guinée fekk ñëwuñ jégalu la baalu la àq duñ mës a jël coupe euh, ñëw nañ jégalu wala lan moo xew. ak lu ñu xaw waaw ñëw nañu jégalu. ñëw nañu jégalu alhamdulilah rabbil alamin maa ngi leen sant ba léegi. Mm. nañu taxaw pour que man sama papa. Mm-hmm. Guinée la jógee. ñëw toog Sénégal. Euh, Casamance. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. sama soxna Gambien laa. am na man am man ñun dañuy doon dañuy doon sëriñ. sama maam sëriñ la Gambie képp Gambien koo xam ne Gambien la. xam nga na xam nga sama maam. ñoom dañu nekk loo ñoo xam ne ay sëriñ lañu. waaw. ay sëriñ firdu lañu. yaa allahu rabbi lépp la ñuy lu ñuy wax fii loolu moo am boo ñëwee ci man dañ koy gis. waaw mais sëñ Diawo tey euh, am na loo xamante ni gis naa nga koy liggéeyal jigéen ñi ëmb. nga ne ma loolu ku ko am di nga am doom ci jàmm ak salaam te doo ci ñàkk sa bakkan. wallahi doo dem opéré doo dem fenn jigéen boo ambee ma defalal la bagas doo dem opéré doo doo dem fen da ngay da ngay wasin jàmm salaam dara du ci jigéen nag dafa war a aar bopp bu ëmbee dafa war a aar boppam. surtout loolu. bu ombee dafa war a aar boppam. Mm-hmm. parce que même jinne yi dañ ko soxla doom fu dañ koy yàq depuis ci omb bi. Mm-hmm. Ah? doom yi dañ koy yàq depuis ci omb bi. looloo nag jigéen bu ombee dafa war a aar boppam. bu baax a baax a baax a baax jigéen boo xam ne nag musta am doom bi fekkee ne day di gis mbaax. bu ma la ko bu ma la bu ma la defalee léegi nga am doom. am doom léegi léegi léegi nga am doom. léegi léegi nga am doom. jaaw day am doom léegi léegi. nga am doom. léegi nga am doom maanaam am nga am nga ëmb 40 jours lay feeñ. ci biir 40 jours bi da ngay xam da ngay xam ne ëmb nga. waaw waaw. Mhm. mais sëñ Diaw Pël Firdo euh, tey boo xoolee euh, bokk na ci li lay indi Sénégal sax li ëpp euh, surtout boo ñëwee dakaar mooy xeeti xëccoo suuf yi am na dégg naa looy liggéey loo xamante ni booy xëccoo ak ni suuf parce que des fois tamit surtout jaaykatu kër yi dama leen di dangay gis comme day ñëw ci sàmba jaay ko suuf jëlaat suuf si jaay ko ma Demba jëlaat suuf si dem jaay ko Paate problème am te genre sëriñ si xamuñ caaxaan ñii ku leen engagé di leen ñaanloo. ak ku mën di xëccool suuf kooku mooy perte wàllum xëccoo suuf ñu bëgg naa nga dugg ci. suuf boo jëndee suuf nit ñu ne daf ko daf koy jëndaat wala daf koy jël sa loxo bu ñu gisantee suuf boobu boobu kooku mënu koy mënu koy jël sa loxo illa yow mi diin. bu bu ko laalee rek dana am problème terrain boobu bu ko laalee dana am problème. loolu maa la ko wax. Ah? am na lu ñuy def boobu boobu moom tànkam bi bu dégaatee foofu dana am problème. tànkam bi bu mu dëggaatee foofu donc si terrain boobu dana am problème. xam nga doomu aadama da ngay war a ragal yàlla. Mhm. bu ñu ragal yàlla ñun dañuy lekkalante comme jenn. Mhm. comme jenn laa lay wax nii. waaw kon ñooñu jaaykati suuf yi nañu def tension. Mhm. bu dul loolu ñi bari danañ am problème te du ñu xam fan la ñu am problème boobu. ayca numéro téléphone Serigne Diawo Pël Firdo mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot suñ Diawo euh, bëgg naa dugg ak yow ci li nga xamante ni moom mooy fay coow coow li ci dëkk bi boo ko tuddee xel yëpp dem ci sonkoo Adji saar mais yeneen coow ñu ngi ci gën a pire gën a garaaw ma waxtaan ak yow barke démb ci guddi nga ne ma xanaa xamoo ne coow lu gën a rëy ci dëkk bi ak coow lu mënti doon ak fu mënti doonee fay ko. matuma sax nga lax lu tax nga wax loolu. waaye fay fay fay ko jooni jooni la man nga xam lépp lu may wax rek jooni jooni la fay coow am na. am na fa coow lu munta mel. fay ko léegi léegi doo ko coow boobu doo ko doo ko doo ko dëggati bi la yow mi diin. dañ koy fay comme nu ñu fayee safara ak ndox. lañ koy fayee. coow. Mm-hmm. képp ko am problème. problème. waaw ñu ne problème coow ñu wàllu yoon. buñ la ko buñ la ko defalee. Ah. léegi léegi nga gis résultat bi coow boobu dana fay dana jeex. waaw. allahu te man dama fokk dama nekk nit koo xam ne du ma fekkee nit ci coono ba pare ma yokkal la coono. Mm-hmm. dama lay wax loolu. Mm-hmm. du ma fekkee nit ci coono ma yokkal la coono. lan mooy loolu nit ki nga fekke ko ci coono mu mu ñëw wax wax ko mu wax la coonam ba pare nga ne ko indil nangam indil nangam fekkee li ngay wax noonu amoo ko man du ma def du ma def loolu. lépp lu ma gis lu ma wax ne lii mun naa ko. bu ñu waxtaanee ba d'accord bu ñu liggéey da gis résultat bi. alors da ngay gis résultat bi. li waaw da ngay gis résultat bi. mais li xew léegi ci dëkk bi noo ko dundee nit jug ne sëriñ laa te du sëriñ nit jug ne dama mën a ñaan te mënta ñaan loolee jaaw yéen en tant que seen dëkk yi dañuy dégg naa nit buy mbubboo sëriñ sax da ngeen koy sànni korte mu yàq wala dara. waaw ah, waaw jooni jooni dañ lay sànni korte nga dee. Ah. parce que yow da ngay yàq nanguloo parewuloo pour liggéeyal doomu aadama dañ lay sànni korte nga dee nekk kenn du ko loolu baaxut nit ki boo ko fekkee ci coono yi bul ko yokkal coono bul mbubboo mbubbu sëriñ fekkee doo sëriñ sëriñ balaa nga koy doon sëriñ da ngay war a gëstu ci fànn yi comme li ma lay wax rek man dama gëstu ba pare ma woo jinne yi fekke jama ànda man dama gëstu ba pare ma woo jinne yi ànda man fu ma munta nekk rek ànd naa jinne fetal ak tulu tul fesal tul jaaf yi am na. ku bëgg nga na voilà loolu moom neex na ma maanaam Sénégal fii. jamono élection mu ngi ñëw. élection mu ngi ñëw. nit ñi nañ ku nekk nañu waajal boppam. waxuma la dañuy Sénégal macha allah du musa takk. du musa takk. kenn du ko taal. kenn du ko taal. Sénégal du du musa takk. wax rek la ñuy wax. mais na doomu adama nag fépp foo mënta nekk da nga war a aar sa bopp. Mm-hmm. aar sa bopp. nit doo foo ta nekk da war a aar sa bopp mais Sénégal dañuy coow rek Sénégal du mu sa ta takk illa yow mi diin illa yow mi diin loolu maa la ko wax loolu mm-hmm. waaw jaaw da gis nit jàng ba am yegg ci yenn niveau yi am bac am li mu war a am lépp te du am liggéey ñàkkum xëy mi ci dëkk bi loolu moom si nit loolu saabu du sital nit saabu du setal nit ñaan mooy setal nit nit set na ñaan la saabu du setal nit nit boo bàyyee yaramam fekkee yow sa yaram bi saabu kese ngay dund <laughs> doo gaaw a set doo set nekkul ne sangu naa ba pare sangu naa maa ngi sol su set te ñaan loo yow ñaan boobu tegoo ko dara ñaan dara la ñaan moo nangu Sénégal fii Sénégal boo gisee lépp lu am ñëw mu sëdd ñaan la képp ku toppul ñaan xoolal rek nit boo toppul ñaan rek doo dem donc jàngkat yi ñi bugg a liggéey bugg a am place nañu fexe ñu uti sëriñ nañu fexe ñu ñu ñu am ñaan nañu fexe ñu sangu. dégg naa seen dëkk ku fa euh, tëddee jabaru jàmbur euh, rajo bi day yi su ma nee rajo bi nag. borom xelu sellee tax may wax rajo. loolu moom am na. ci digg bi lay jaar. loolu moom am na. Mm-hmm. képp dugg ci jabar jàmbur am na noo xam ne bu ñu ko defalee uh-huh. doo yow jigéen moom pare nga ci moom illa yow mi tiini pare nga pare nga ci jigéen waxuma la jigéen jàmbur boo ko musee laal boo ko laalee pare nga ci affaire jigéen ba nga dee kon tiim jabar jàmbur wóorul de wala xaw la loolu defa dangereux loolu dafa dangereux waaw dafa dangereux de na nit ñi ne bàyyi loolu Euh, sëñ Diaw tey su ma la waxee ni la euh, cat bokk na ci lii rey lu bëree bëree bëree bëri surtout ci monde bi euh, mais cat xanaa amul gàllaaj goo xamante ni day tax cat bañ a dal nit ki. cat comme li ma la wax cat am na sungu boo xam ne sungu boo xam ne bu ñu bu ñu la ko joxee bépp cat cat bu nekkoon même depuis bi nga nekkee liir ah. ak ak at boo mënta doon at boo mënta doon ah at moo mënta doon. cat boobu day yàqu. cat boobu day yàqu. wallaahi nga. Mm-hmm. maanaam am na sungu boo xam ne. Mm-hmm. même fekkee ne da am gallaaj waaw bokkuma fekkee gallaaj boo xam ne bokkul ak nen yi ma lay wax noonu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Euh, nga baal ma dafa am benn jamono. bu paase. diggante Bombardier ak kii laa doon wax euh, kii euh, Balla Gaye. Bombardier gis naa benn suñ sunguf bala euh, bombarde joor ko. redd ko nii. waaw bala dugg ko bu mu duggee ma ne yàlla nekk na. xam naa ko. xam naa ko sunguf boobu xam naa ko. allahu akbar. dégg bekkee yaa ngi boree bi ak loo galaaj galaaj galaaj nit bu bu leen defalee loolu nga dégg ko pare nga lépp bépp galaaj bi nga yor rek day yàqu. xam naa ko. gis naa tamit euh, sëñ Diaw euh, mu am benn euh, xeetu lu mel ne lëm. loolu vidéo bi su ma juumul bu fekkee yor nga ko sa téléphone danañ ko jàllale muy taal boobu ma gis ngeen taal ko ci guddi mu leen dem Chris ma gis ay nit ñu gàtt tiim ko di jàng nit ñooñu ay ñan lañ ñan lañ ci lu mel ne genre kus kondrong dangay may jaar ci tur wi. gisoon naa vidéo vidéo bi ñu filmé la. kondrong la kondrong la. ma leen ñun dañuy woote ñu nekk. ji façon jinne bu nekk. yooyu contrôle lañu. yéen kon kon seen ñaan gars dañ koy sot. gars yi dañ koy sot nekkul ne man may wax. mais fu mu toll nii ñi fi toog macha allah bari nañ. man may wax mais ñi fi toog bari nañ. ay la ay la sa diggante xalwa. xalwa <laughs> am na ñoo xam ne dañuy wax ne xalwa te du ñu dugg xalwa. Hmm. xalwa boo xamee xalwa. Hmm, hmm. ku la dugal xalwa sa aju faju jooni jooni sa aju faju waaw mais nag am na client yoo xam ne dañ leen di wax ne sarax bi sarax bii sarax bi sarax bi duñu génnee sarax nañu client yi nañu xam ne sarax mm-hmm. sarax lu am solo la mm-hmm. nañu jaam a génnee sarax mm-hmm. sarax bu munta doon nit la waxee génneel sarax dégg nga sarax sarax lu lu dimbale ñaan la saral lu jimbale ñaan la. Mm-hmm. Euh, lii nag ci pël laa bëgg nga waxtaane ko muy wàllum néew kàttan mm-hmm. faiblesse sexuelle mm-hmm. ndax euh, am na ci loo xamante ni euh, bëgg naa nga dimbalante ci ak sa mbokki pël yi góor gu néew kàttan. yo gorko mbo ala gorko mbo heewani doole gorko mbo heewani doole ɗum lekki mum nawoodi gorko mbo heewani doole walla ko goɗɗo liggima ɗum ittete si an ah, a ah, e debbo ma ah, nden ñande nden ñande debbo ma o ma nden ñande a waldi debbo ma o ma ɗum ne woodi ɗum lekki mum ne woodi gasata no neɗɗo wawta ɗo haalde fof ko jogii ko par que ko allah ko andi ko yoni allah ko andi ko yoni waaw allah fulɓe mi haalna on hunde wotere neɗɗo tagaɗo na ñawdo neɗɗo tagaɗo no ñawdo wata suud ñawu ñaw bu leen nobbu euh, feebar képp ko am feebar bu ko nobbu wakko wata wata cuuɗe ñaw ñaw suutake mhm. ñaw kala ɗo gonduɗa haal mhm. ñawdoɓe ne mbayna leydi waaw mais sëñ Diaw ana galaaj boobu mel ne genre doom dañ koy suul ci kër nga ne ma day naatal kër kër guñ ko suul wala mu nekk fa daf koy naatal am na boobu am na mu ngi ci ne bi mu ngi ci ne bi am na kër boo mun munta am kër gi kër gi nu munti jafe-jafe buñ ko liggéey ba pare ñu def ko ci kër gi kër googu dana naat fekkee ne itam nag njaboot bi jubawuñu danañ juboo neex leen naqari leen danañ juboo waaw looy tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV yo mi mi salmina bandiraɓe eh, haalpulaar mhm. en eh, eh, musidɓe am wonɓe Guinée Bissau e Gambia Eh, maa ngi nuyu sama mbokki Gambia yi ak sama mbokki eh, sénégalais yi ak Guinée Bissau eh, maanaam comme li ñuy waxtaanee rek doomu adama na fagaru moo gën a faju yàgg nañ ko wax ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf ay co mbokk yi dégg waxtaan waxtaanu am solo wi nga xamante nii sëñ Diao Pël Firdo waxtaan na ko tey mu nekk waxtaan woo xamante nii ngëneel rek la làmboo mbokk yi kii Pël Firdo la kii moo dëkk ca Guinée Bissau waaye kii doomu Sénégal la ndax dégg ngeen ko waajuram moo jógewoon woon ñëw fi nga xamante ni mooy Casamance. am na at moom fi jote woon ak fédération football bu ginee ñenn ci ñoom ba génnoon def déclaration ba tëkkuwoo leen yaakaar naa génnaat nañ ñoom it jégluwaat ko ñenn ci ña nga xamante ni ñoo dëkk ca dëkk ba moom doxul ci caaxaan kuy jëflante ak moom na la jub tax a jug na la sa bopp tax a jug bu la ci ay caaxaan dugal parce que kii fawul pour ñu jël ko émission rek lu ne daj nañ ko ngir xam-xam bi yàlla def ci moom ay co numéro téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek dinga ko jot mbokk yi doon topp duñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jey Muhammad Rasulullah